sàkku ci askan wa nag ñu daal di xipp seen i gët te gën a bàyyi xel seen diwaan googee lu jëm ci defaraat Sénégal ba mu mel ni mu meloon nag candidat bii di professeur Daouda Ndiaye ma ngay sàkk ñu may ko juróom benn weer rek ngir mu daal di tabaxaat Sénégal ma nga woon ca Kolda fa la yëkkatee yooyee kàddu campagne électorale boobee nag lu jëm ci mbooloo mi nga xam ne rek moom lañ cey gis saay su nekk yéenekaay bi di l'observateur ca la def taxaw seetlu nikki ki tey jii nag yéenekaay bi ne jafe na lool ngir ñu méngale nag ful bi nga xam ne mooy topp candidat bi ak lu jëm ci wàllu bi nag mu fekk jamono joojee nag Bassirou Diomaye Faye moom ma ngay génne li nekk ci dënnam ginnaaw waxtaan wu yaatu woo xam ne rek séq suñu naataangoo yu Walf TV Walf Quotidien xëy dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek moom candidat Pastef bi yëkkati na bi ne sol na mbubbum njiitu réew mi nag bu yàgg te ñu daal di delloowaat réew mi nag lu jëm ci wàllu sérieux ndax boobaak léegi nag ma ngay dund ki jafe-jafe la ñu jàpp ne nag jafe yooyee askan wi nekkee nag ca lañ ko mën a jaaree daal di koy dakkal yéenekaay ma ngay dal bu baax ci kaw Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba jàll ci leneen mu di yëglekaay bi di Le Quotidien ma ngay xam ne ne candidat Benno Bokk Yaakaar boobee nag am na ay bula yoo xam ne rek dem nañu fekk ji waa Maron fukki député ak ñaar fukki responsable yu fédération nag ñoom ñëpp jamono ji fekk nañu nag kii di amadu Ba ngir jàppale ko ci yile élection position bi nga xam ne rek moom la parti démocratique sénégalais amee nag ba nëgëni si nag kenn xamagu ko Karim Wade mi ñu rëkkalee ak waa FDP yi nag ñoom jamono ji ci xàjjatloo la ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Populi nag ma ngay xam ne ne ñenn ñi fas yéene nañoo boycotté yi les élections ña des nag di xam ne ne du ñu amal benn collaboration ak benn coalition mu fekk ci yëglekaay bi di bés bi le jour Idrissa Seck moom ma ngay xam ne ne nag ne mooy candidat bu parti démocratique sénégalais ci biir yëglekaay bi moom Idrissa Seck nag ma ngay xam ne ne nañu ko dénk réew mi ndax moom mii nag xam ne nu ñuy def nag ba mën a lijjanti ay ressources loole nag jaaree ko ci ay relation internationales yoo xam ne rek am na ko mu ne am réew nag kenn waru koo jox ay novice doxalinu président de la république nag dafa nekk mbir moo xam ne rek dafa kon nag du ku nekk rek la ñu ko war a teg ci ay loxoom yéenekaay bi ba tey nag def taxaw seetlu ci poison yi nga xam ne rek mi ngi tukkee ci candidat yi message bi nga xam ne rek maire bu war a sooga na ko mu mën a yàqal bu baax kii di Amadou Ba ci atum 2012 yéenekaay bi di fàttali nag ne ginnaaw bi ko maître Abdoulaye Wade defee nag menacé waa Matam ak waa Podor mbir ya wexoon na ko xaat ndax askan wa ci vote sanction la ñu ko daal di fajee lu mu ci mënti doon enquête yëglekaay ma ngay dellu siwaat ci taxaw seetlu goo xam ne rek def na ko ci future première dame yi nga xam ne rek moom la ñu am ci réew Sénégal ci digg diggante Senghor ak léegi yër leen boobee yëglekaay libération dellu si tey ji nag ci chef bu mission bu observation électorale bu CEDEAO ma ngay xam ne nag ne professeur Ibrahima Gambari nag yegg si na fii ci réew Sénégal ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne processus électoral bi nag daañu ko doxal ci anam bu jaar yoon mu fekk jamono joojee nag victime yi nga xam ne dañ leen di tëj ci ay longue détention nag dal di fipp ci ay audience yoo xam ne rek amal nañu ko ca palais de justice les échos yëglekaay dellu si waat nag ci procès yi nga xam ne rek doon nañ ko amal jagleel leen ko ginnaaw ay at yoo xam ne rek dañu leen a làq jant bi te kenn waxul ci seen i dossier loolee waral nag ba prisonniers yi daal di fësal seenub ñëgg-ñëgg xool ca ba ñuy amal ab audience ci saal yi nga xam ne rek fa lañ leen di àttee ne basta dafa doy sëkk nañ leen àtte te xamal leen seen i pen tàggat yaram la ñuy àddu jëmale réew mi sport ma ngay xam ne nag taxawaay bi Boulaye Dia war a am ci tañeer bi nag ngir delloowaat buum te mboy mboy ga sunu lamb dellu suwaat ci jongante bi nga xam ne rek choc bu risqué la nag ci troisième tigre bu Fass Ama Baldé nag ma ngay xam ne ni daal du may dara bokk yi loolee gënoon a fës ci xëtu